Seex Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ña daa xiiru ak ñay mat yaa xayra محمدنا فراتنا والجود مسري بيامين جول مكا أمدنا رحمتنا أميدنا محمدنا فراتنا والجود مسري جول مكا أمدنا والمكان للمصطفى الذي ترام له الصلاة والسلام امتداء كلها رمت من المكرم مصطفى للمصطفى الذي ترام له الصلاة والسلام ما امتداء كلها رمت من المكرم مصطفى سواي دنيا واي كنن سواي دو خاتي جنفني desul le gam di gam lala sa den la doy Seex Mustafa sa waay du ñee waay keneen sa waay du desul le gam di gam lala sa den la doy Seex Mustafa sa waay du ñee waay keneen sa waay du xaadi jëm feneen desul le gam di gam leneen sa den la doy na Seex Ahmadu Maxtaar moom mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Moustapha si kaw suuf yàlla na fi yàgg loo tànd ak wér ak ak magam Cheikh Madul Muntaxa mu yàgg fa tëwér mu sëñ Touba ginnaaw loolu nag ñu ñëwoon tey si bis bi nga xam ne mooy bisu sëñ Touba di bisu Cheikh Madul Moustapha di bisu sëñ Touba fay tey fii si pàkk bu sell di pàkk bu tedd di Daaru Xudóos bi ngi ñëw nag ñu fi ànd ak àndanteeg sëñ Saliou Mbacke mu Cheikh Mamadou Basir mu sëñ Modou Xabaan mu sëñ Manumbe ak sëñ Abou Mbacke mu Cheikh Amsatou mu Cheikh Abdoulahat sëñ Mouhamed ñaan di sëtu sëñ Alaaji ñaan ak ala ak ak ak ak ak ak Ndiaye Teranga mi siyaare si nag Cheikh Abdou Dieng Jamil mi nga xam ne dañuy wax ne gone loo xam setee mën a bokk ki mag dëgg la ay tout tànk lañ waaye ku loo xam set la moom it wax dëgg yàlla muy muy koo xam ne ku tegu si yoon la ku am weer la ku am teggin la ku ku ku mbokk ñëpp bokk si yoon wi ba pare jaxasoo waa ko Sëñ Tuubaa pare doon ab taalibi def boppam taalibi di lépp di lépp Sëñ ñu ñu ñëwoon siyaar ko tey si bis bi nag ñu si sant Sëñ Tuubaa bu a sant dellu si sant bi Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne moo njëkk wutu Cheikh Al Khadim Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne mooy taw yoon wi bis bii yaakaar naa képp ku fi ñëw saxal dina dem sëñ Touba ndax bis bii la Cheikh Modou Moustapha jële woon sëñ Touba njaareem sëñ Touba ne bu ngeen ma fa yóbboo taxaddamut moo waral moo waral bis bi tey kon bis bii bisub sëñ Touba la waaye bisub Cheikh Modou Moustapha la waaw ñu ngi kon yoonu mur gépp am nañu jëkkal Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou Moustapha moo ufoon moo ufoon takkam ya Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Basir Cheikh Abdoulahat ba si Cheikh Salih njabootu sëñ Touba gi yëpp moo uufoon leen dama ne leen jumaay Touba ji ni mu toll Cheikh Modou Moustapha moo ko fondation Cheikh moo ko fondation fondation bu rëy raay bi Cheikh Modou Moustapha ko fi indi kon Cheikh Modou Moustapha daal maanaam li li taaw di defal li taaw di defal ab waajuram daal Cheikh Modou Moustapha defal na ko sëñ Touba taaw bu mat taaw la kon bis bii ñu ngi ñaan yàlla si barke Xaadimal Moustapha sunu borom nangu ñaan yi ñu fi ñaan yëpp kaamil yi ak alxuraan yi ak wàcce bi démb rek macha allah xewul gu bëri wàcc na Euh, léegi ñu ngi ñaan daal si bàkki sëñ Touba yàlla yàggal fi Cheikh Amadou Cheikh Amadou Makhtar yàggal fi Cheikh Amadou Mountakha ya euh, mi sëñ Touba si kaw suuf yàggal fi njabootu Cheikhul Khadim gépp ñaan yàlla nag si bis bii fii lañ ko tibbee si ëtt bii di ñaan yàlla mbas mi jóge fi nag bëgg nañ daal buñ fi jógee si bisu bisub sëñ Touba bi daal ñu koy dégg daal buñ ko gisati daal na fi jógee te jeex tàkk loolu la ñu woon nañ ko ubbee ñu ngi siyaare mbokk yi fi nekk yëpp siyaare sëñ Cheikh Mbacke Dia ak jànkatu xasaay di ñu ngi leen ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan Cheikh Abdou Dieng mi mu doon mag yàlla sàmm ko aar ko ba lépp lu mu bëgg liggéey sëñ Tuubaa mu def ko wasalaamaaleykum. moom day nit ku baax yaru loolu jox ñëpp cër mm-hmm. wax yàlla maanaam foo fekk mm-hmm. lu ne ci poche yi yaa ko ci bàyyi bu la neexee ak ku mën a doon nag ak foo a ak foo mën a jógee waaw moo tax maanaam ma bàyyi sama yitt yëpp jógee Dakar ñëw mm-hmm. man sànq lay doog ak si sax waaye moom rek moom nee naa ko nag màggal gi yow yaa ma yëkkati waaw ndax day nit ku baax yaru lool teg ñëpp ci place bokkal alxuraan. am ay warma doon nit ku baax te tey fajkatub aajo nag bu mag waaw moo tax nag ku fi teew rek daanaka da nga koo fay si bor ndax moom ko xewle xeebalu la dara ko mën a xewle foo nekk dana la fekk ñëw la am saafante koog yow waaw kon ñoo ngi koy ñaanal bis bi lim ci bëgg ci maamam ak sëñ Moussa ak sëñ Touba lim ci bëgg yàlla na ko ci sëñ Touba defal lu kaw yortam di ñaan képp ku fi teew yàlla na fi teew déwén barki Cheikhul Khadim ci bis mag bii nga xam si nii mooy bisub Magal Daaru Xuddoos bis bi Cheikh Mouhamadoul Moustapha jële woon Serigne Touba njaarim andi ko Touba bis boobu lañuy ñuy fàttali di ngeen seen muharram di bis boo xam si ni bis bu yitteel Cheikh Mouhamadoul la woon bis bi nag xam mooy na ko Cheikh Mouhamadoul Moustapha waxe woon guddi la goo xam si ni mboolem ko ko fanaanee dundal ci lu baax da nga set wicc ci bàkkaar ba mel ni liir bi doo ko judd te itam loolu da cee jubóog boromam ba sunu borom may ko ko moom Cheikh Abdou Moustapha am ñaan ko ci guddi gi di guddi gu barkeel goo xam si ni boobu mi ngi fekk Cheikh Abdou Moustapha ci barab bi ñu wax tubaakayal mel ni fi mu toog ak mag ñi Cheikh Moustapha yëg ko daal di jukk dem ca tokkuru ñam bu nekkoon foofu taxaw ci ratt ga mel ni lu xaw a jaaxle wax nañu keroog. sëriñ Mor Njàndam Diop mii maam sëriñ Mbàkke Soxloo moo ko fekk daana ko sëriñ bi ana looy taxaw mu ne ko man de Mor Njànd damaa jaaxal mu ne ko ana loo war a jaaxal mu ne ko Mor Njànd am na loo xam daana ma xamal ne ma boo amee ñeent fukk doomi kilifa te Mor na fii ma taxaw nii sama ñeent fukk tegal nay bis te sëriñ Tuubaa ngi fi sëñ Mor ne ko Mbàkke looy doon jaaxle sëriñ sa dellu ca kër ga ñaanal mbooloo ma ñaax leen daal leen di dénk. daal di bàyyi ko foofa daal di jaar Surra jaar Tindodi jaar Nayda jaar Kellal nga xam dëkk yëpp Cheikh Moussa dafa jaar waa taxawu fa sëñ Moussa daal di jaar dëkk bu ñuy wax ñaaxeen ñaaxeen nag barab la boo xam si ni waaye juróom bu baax wa maam Cheikh Anta moo ko joxoon mu sanc ko ci 1922 ci barab boobu la ko fekk waaye mel na ne la doon wax ak moom naan ko njaareem di mat naa nemmeeku waxtu nekk mi ngi koy fàttee naa ko njaareem di mat naa nemmeeku Cheikh Moussa itam yëpp mooy dem njaareem teewe xew-xew ba mel na ne bi mu jaaree ñaaxeen bisub altine sa dimanche ga la bàyyi ko Touba kon sëñ Moussa mel ni ne fanaan na ñaaxeen ñaari guddi bi mu xëyee talaata ci yoor yor bu dëgër la sëñ Moussa bàyyi ko barab boobu di ñaaxeen daal di jaar gaawaan ci maam Cheikh Anta mel dafa am gan gum ko digoon waaye mel ni keroog gan nga yàlla dogalu ko boo daa fekkoon Cheikh Moussa ci tëj. bi Cheikh Moussa jaare gaawaan jóge foofa jëm Jurbel wax nañ ne bi mu egg Jurbel booba waxtu ginnaaw tisbaar takkusaan jotagut bi mu àggee dal ci këru boppam bi ab diir sëñ Maam lu ñu dagana fekk ko fa ak sëñ Maxtaar si la bëkk nekk ne ku baax ke mën naa nemmeeku mel ne ba mu jullee dimanche ba léegi kenn xamaatu ci moom dara sëñ Moussa daana waa baax na lépp mu teg ci ak dal ndax ku baax ki daana ko juñ naa ko Mahamadul Moustapha bu ñu demee weer tam xariw teeru de mën a nekk Mahamadul Moustapha na nga dëpp seet ma daane ko Mamadou Moustapha su ma bàyyi ko day dangeen fexe ma dem Touba te bu xaddam bu ngeen fexe ma dem Touba day Mamadou Moustapha lépp ma nekkal leen ci bu ngeen fexe ba déwuma Touba rek dana mel ne déwuma woon fenn kon sama yitt yëpp Mamadou Moustapha su boobaa Touba la moo tax sëñ Moustapha yittim jëpp fexe def yitt ak pas-pas bi ak jom ba sëriñ bi dem ci barab boobu di Touba mel na keroog bi sëñ Moussa dalee kër boppam mag ñi yëgal ko sëñ Moussa wax nañu ginnaaw timis bi mu jullee ba noppi daal di ànd ak sëriñ Abdoulaye Diop leew na mi nga xam si ni moom la àndoo dem ñaaxeen ànd ak sëriñ Maxtar si la bëkk nekk ak sëñ moom lu ñu dagana daal di dem ci kër gu mag bi mu àggee sëriñ Cheikh Fatak mi nga xam si ni bokk na ci bëkk néegi ku baax moom la Cheikh Abdou Moussa laaj sëriñ wan ko kees gi mu ko mujjee gis wax nañu keroog Cheikh Mamadou di ànd ak sëriñ Maxtar nekk ak sëñ la ñu dagana ak bi laa Diop lew na mag ñi daal di jiitu sëñ moom lu ñu dagana sëñ Maxtaar si la yàlla am portefort du ñiit wax nañ bi ñu eggee daal di yëglu mel ni dégguñu dara sëñ mënu soo daal di jàll ci kër gi nga xam si nii mooy fi ku baax ki nekk bi suñ soo yeggee daal di yëglu mu xaddamtiku déggu dara daal di jàll ci biir jàkkaarloo bu baax ki wax ni keroog bi mu jàkkaarloo ku baax ki ci ni mu ko fekkee xam na tey suñu borom agsi na ko dogalam Cheikh Moussa xam ne mboolem responsabilité yëpp mu ngi ci kawam tey Cheikh Moussa moo ko gàccoo mooy taxaw sëriñ bi ci njaboot gi ak yoon wi ak njaboot gi lépp Cheikh Moussa moo ci nekkal Cheikhul Khadim sëñ dal daal yónni ci sëñ Bassirou nga xam si ne rakkam la sëñ Cheikh Khary Dieng ni jaay sëñ Bassirou dem woy sëñ Bassirou bi màggee daal di woo Cheikh Abdou Bassirou fekk mu toog ak naar gànnaar bu wax. Mouhamadou Ibnu Abdourahman Tandix yu moom Serigne Touba batale woon ne na bokk ci jëmm yi nga xam si ni ñoom ay waajal wax nañ ne keroog bi sëñ Bassirou ñëwee fekk Cheikh Abdou Moustapha ci xew-xew bi mu xam na tey lii leen seen waajuru santoon yitte jëpp mooy feex bandam Touba sëñ Bassirou daal lañu woy Mouhamadou Ibnu Abdourahman Tandix yu moom bi ñu woowee Mouhamadou Ibnu Abdourahman Tandix yu moomu bi mu ñëwee xam ne li ku baax ki santoon tey ji jot na sëñ Moussa daal di yónni ci sëñ Balla Coro ñu woolu tubaab bi mu ñëw di ob man paal commandant bi ñëw xool ko ànd nit ku ñuul ban xool ko xam ne génn àdduna tubaab bi laaj sëñ Moussa ne ko lan moo ci pexe sëñ Moussa daal ne xanaa yóbbu ko këram gi ci Touba day la ma sant danaa ko defal damaa xamaloon ne ma day bis baa day bis baa Touba sama yitte jëpp ma fexe ba ku baax ki dem tubaa tubaab bi daal ne ko day sama soon ñu bàyyi ba suba may yër ko sama kilifa sëñ Moussa ne ko amul lenn lu ñu xaar yitte ji mooy tubaa ñu ne ko waa baax na mën naa nekk ñu daal di waajal indi oto sëñ Balla Coro biñ ko waajalee ba noppi sëñ Cheikh sëñ eh, Cheikh Fatak Diop nettali na ko ci ni mu gën a leere ne keroog biñ ko dugalee ci oto bi sëñ Bassirou jiite délégation ba Cheikh Moustapha des Njaareem sëñ Maodo Ndiaye dana dugg sëñ Makhtar si la bëkk nekk Mouhamadou Ibn Rahman Tan Ndexiw naar gànnaar boobu dugg sëñ Cheikh Xar dugg ak ku ñuy wax du Cissé keroog moo nekkoon chauffeur oto ba keroog moo ndawal oto ba di fajaru ba guddik talaata googu moom lañ bàyyi ko Njaareem jëm moo nga dégg sëñ Moussa Kanaan ku ko wet di seetal bis bu Bamba wijee buur yàlla téléphone mu Moustapha fa ñaaxeen mu ñu yóbbu ko tubaa fukkun fa yàkkoon kon mel ne sëñ dañ koo téléphoné fa mu nekkoon mu yëg xew ba yóbbu sëriñ bi ci barab nga xam si ni mooy Tuubaa ay mel ni sëñ Moussa keroog bi mu seen jarim sëñ Bassirou jiitu yóbbu sëriñ bi tubaa ak ñi mu àndal ci mag ñi bi ñu àggee daal di yónnee ci ñi féetal ci dëkk ba booba woy Cheikh Modou Fadal wooy sëñ Mbàkke Bousso mi nga moo ko taxaw sëñ Abdourahmane Lo daron alimu xabir te itam booba wax nañu sëñ Mourou Sa yónni ko ñox sëñ Abdoulaye Diop lew na mu dem Daaru Muxti yëgal ko maam Cerno borom Daaru Muxti maam Cerno ñëw te maam Cerno sëñ Tuubaa da ko batale woon ne ko Cerno de su bis baa fii la ca ngoonu bépp ga nga xam ne foofu fa la bépp ga nekkoon ci jamono boobu fajar àllarba sëñ walu ñu dagana nee na laata fajar noppi la noppi ci baraag bi biñ ko bi batale ko ñu keroog ñoom ñoo fekkee liggéey bi nga xam si ni moom la ñu liggéeyal Serigne ca Touba ci 1927 ci atum Wamsasin ca fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Tamxarit ci ñaar fukki ci ñaar fukki guddi ya di nga sunu Muharram nga xam ne ni moom la ku baax ki fanaan si woon fii Cheikh Moussa defal ko bëgg-bëggam Cheikh Moussa wut Serigne bi ci njaboot gi mu fi bàyyi taxaw sinum njàng lañ def ci Cheikh Moussa mu def ko ci rakkam jàppe leen ay doomi Serigne waaye jàppe leen ay rakk moom Cheikh Abdou Moustapha am na ñoo xam bokk bàyyi ndax ni Cheikh Moussa meloon ak ñoom ci kër gi te tam mel na ne boo xoolee muutu ko ci liggéey jumaa ji tey it tubaab bi dënn ko dañ koy may jumaa xañ ko jumaa dañ koy may jumaa xañ ko jumaa mooy dañ koy tegal sart yu diis yu métt yoo xam si nii du ko man tey it dana bàyyi te du ñaawoo ak ñun sëñ Moussa daan tubaab bi daa xamut waaye suñ ma xamaloon ne ma da ngay solu soldaar ma sol ni militaire yi soloo liggéeyal sëñ Tuubaa jaral na ma ko sëñ Moussa daan liggéeyal sañ Tuubaa jaral na ma lool te itam li ci dëkk mooy fex ba titre foncier dëkk bi wutale ko tubaab moom boppam nga xam ne kii ko yilif mooy ki fi nekkal sëriñ bi jamono booba Cheikh Moustapha fexe ba jënd ko fexe ba ñoddi raay bi jaare ci bagage yi nga xam si ni ñoo ñëw ci liggéey jumaa ji wax nañu keroog bi liggéey bi noppee sëñ Moustapha daal di teg wi ñu jublu ci liggéey jumaa ji wax nañu bi muy dem ci bi muy wiji boromam ci 1945 boo wax nañ ne bàyyi na ci jumaa ji booba génn na ay palanteer booba moom Cheikh Moustapha ba génn na ay sorol ba xam ne koo gis na lii ay sorol la fekk booba la Cheikh Moussa Ka naan moo tàmbali jumaa ji mu weesu xaaj mu dem bàyyi ko alxaaji rakkam Cheikh Abdou Fadal ko ci jamono boobu te itam mel na ne boo xoolee màggal gi keroog bi Cheikh xam na ab ba na ci 1936 at mi suñ baara noppaloo la woolu ku ni wax sëriñ Massamba nekkoon bay taxam bokk sëriñ bi di di rakki sëriñ bi di caatu suñu moon sëli sëñ Massamba la Cheikh Modou Moustapha woolu fekk sëñ Massamba boobu ci ay tournée bi ñu woloo sëñ Massamba bi sëñ Massamba ñëwee waxtu guddi booba fekk Cheikh Moustapha fatu bi mu xëyee gisante ak Cheikh Moustapha sëñ Moustapha daal di tekk maxtu bi mu takkoon daal di génne këyit yi nga xam Sëriñ Tuubaa ko bindoon di sunu Muharram mu ne ko bis bi xanaa ku baax ke ba ko wax fekkee nga mu ne ko mu ne ko bis bi laa bëgg tey ñu woote ko di magul Daaru Xuddus ci 1930 ci jamono booba wax nañu keroog bi sëriñ Moussa bàyyi ko ci këram gi wuti jumaa ji wax nañu keroog foo natt mbooloo ma bari ci bari waaye bi mu bari keroog yéeme na lool bi Cheikh Moustapha yeggee keroog fi jumaa ji nekk fii tollu xutba bu mag bi ñu teg fa ab siis sëñ Moussa ñëw daan li sëñ Massamba toogal ci siis bi sëñ Massamba ne ko du ma toog sëñ Massamba ne ko toogal nga xam ne ku nekk boobu am nga looy xool sa morom ci ab cër te itam boo xoolee booba wax nañ ne sëñ Moussa daal li yëkkati discours am boo xam daan na ko yëkkati kon ndax Ibrahima Sere ak ndëri keroog ñoom ñoo doon jottali kàddu ya kuy wax sëñ Modou Habib di doomi borom daaru Muxti wax nañ keroog moo jàng xutba ba sëñ Moussa ñaax mbooloom ci jaamu yàlla toppi ndigal te moytu mboolem tere yi ñu koy jàng fa alxuraan ji bare bari jàng fa xasida yi bëree bëri jàng fa lim saatan al nabi yu bëree bëri ci 1936 bi sëñ Moussa wootee magal Daaru Xudoos ci jamono booba fii jumaa ji nekk foofu la sëñ Moussa dajale woon mbooloo mi keroog sëñ Moussa jàng xutbaam boobu daal ne bis bii day dama ciy jubóog sama borom ba lépp loo xam si nii ñaan naa ko ci may na ma ko daal bis la boo xam si nii buñ ci yeggatee day mboolem fu waay nekk na fa bàyyi ko ñëw fanaan ci guddi gi nga dundal ko ci mboolem lu baax te xam ne kon bis boo xam sama bakkan laa ci nan la ko Cheikh Abdou Moussa woote woon ci at moom ci atum 1936 loolu moo sabab màggal gi mooy guddi gi Serigne Touba fanaanse fii da nga dégg sëñ Moussa Ka naan ko bi Cheikh Bamba demee bàyyi ko liggéey bi day doy na Cheikh Moustapha mbay yàlla na suñ borom yokk sa doole ji yow juma jumaa ji doy na la doy na la mbay dana ko Bamba mbër ma dem la bàyyi la tool bi yaatu na jumaa ji rek doy na la mbay yàlla na sa sa doole ji gën a rëy kon sëriñ bi lam ko bàyyeel loolu lépp Cheikh Abdou Moussa da koo matale ci liggéey jumaa ji matale ko ci njaboot gi matale ko ci yoon taxaw ko ci lépp kon mel ne loolu moo sabab màggal gi ñëwoon doon barkeelu rek ci bisu tey bi nga xam si ni mooy màggal Daaru Xuddoos wa bi abi bakrin wa abdillahi zidniya fadlan maa lahu wa bi sulaymaan xinni kaydal وكيد خيره وكن يا محيي بأمنا خديجة عبدي العمل في العلم والأداب رب وعمل بأمنا عائسة الخليما يدرني في الأراضين والسماء بأمنا حفصته البين أبات وبينما يجور سوءا ونكات بأمنا زينب سير ما سر مني وما بتل وجعلني وسر بمالك الوسافي وابي حنيفة وأحمد للسجيب bijaahi jibril astajib su'aali wa balighni mablagha rijaali bijaahi mikaa'il abli ni'aman wa nafijal misan haysin karrama bijaahi israafil abli hisma wal takfini awwala yawmil qumma bijaahi israa'iila kun yaa jamiil في الحياة وكسى بعد الرحيم واجعل توسلي لمن يدعو به سعادة دارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنسوي بالأمن وردوان يدا جبر يدا خاتم يدا لخص يلخنا نسين خم خم يفرتو بمستوى sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy see